jëm ci wàllum justice ñoom ñooñee dañoo génnee benn mot d'ordre de grève maanaam ndogal bu ñu jël ngir daal di banque seeni ay yoxu waral nag ñoom loolee ñu daal di koy jël mooy que ne ñoom dafa am ay ñaxtu yoo xam ni boobu ba tey ñi ngi ko amoon ci lu jëm ci seen wàllum liggéey te autorité yi nekk ci réew mi ba tey yënguwuñu benn yoon nag ngir daal di leen koy régleel tax na nag ñoom ne nañ bi ñu consulter la base mooy ñi nga xam ne ñëpp dañoo nekk ci boobu lépp kuréel dañu jël benn ndogal ndogal bi mooy grève valable à compter du jeudi 30 mars 2023 maanaam benn banque seeni yoxoo buy tàmbalee bésub tey jii di jeudi ñu daal di nekk di procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang di war a durer ñaari fan naka kon jeudi ak vendredi lay daal di doon ñoom dañ ciy banque seeni ay yoxoo duñ ci liggéey ji loolu di wane tey dëggal ne bés bu ñu ko defee dañuy daal di paralyser maanaam tënk li nga xam ne moo di liggéeyum wàllum justice fépp ci Sénégal rawatina ci Ndakaaru Njaay surtout ca palais de justice ba nga xam ne fa lañ war a defee Sonko ak Mame Mbaye Niang bataaxal bii nag bi mu daal di génn ñu ci bëree bëri daal di nañ ci indi seen xalaat lañ ci njëkk wax mooy bu dee ñi nga xam ni ñooy liggéeyee ci justice ñoo jël bi lépp ndogal est-ce que waruñoo daal di dàq procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñi nga xam ne sax ñoo war a àtte nit ñi ñoom ñooñee dañoo am jafe-jafe ak nguurub Sénégal kon ci ban réew la ñu daal di nekk fare ak Ousmane Sonko nee nañ nag ñoom kii di président Macky Sall ak i ñoñam dañoo bëgg a forcer bi le ndax benn gis-gis ak benn yaakaar dong lañ ci am mooy éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle yu atum 2024 yi ñu daal di dëgmal. waaye nag ñoom ñu ne du ci dal duñ ko setaan benn yoon duñu nangu ñuy salfaañee ak dëggatee ay àqam ak yelleefam dañ koy défendre jusqu'au bout ndax benn objectif lañ daal di am di xeexal ko ba moom Ousmane Sonko mu bokk ci ñi ñuy woowee les candidats à l'élection présidentielle de 2024 ndax kat nguurab Macky Sall loolu kese moo di seen objectif. Mame Mbaye Niang ca wet ga moom mu ne Ousmane Sonko moo ko daal di diffamé Ousmane waxal lu amul Ousmane Sonko moo taxaw ne am na rapport bu IGE bu mu daal di yor walbatikuwaat ne du IGE IGF la moom Mame Mbaye mu ne ko na nekk IGE IGF ba of nag bu mu ci man ci doon ñëwal yow Ousmane Sonko nga daal di may tegal boobu lépp rapport boo ko defee rek man ma daal di constitué wu en prisonnier maanaam may takkal sama bopp ay menottes jébbal sama bopp procureur nekk tëj ma ci kaso bi Ousmane Sonko nag ne boobu lépp rapport am na ko te jëlee na ko ci bi di compliqué da daf ci dolli injure publique ak faux et usage de faux faux et usage de faux boobu moo tax Ousmane Sonko du mën a ñëw jël rapport bi nga xam ni jëlee na ko ci net bi tegal ko ma mbay Niang ndax bés bu ko defee rek day nekk foo et usage de foo te bu boobaa ay daan mën na ko cee fekk loolu la Ousmane Sonko xam Mame Mbaye Niang ak i ñooñam itam xam ko yaakaar ci loolu tout simplement ñu daal di koy éliminer ci atum 2024 bu ñu sukkandikoo ci ñooñi Ousmane Sonko waaye li ci gën a doy waar mooy que ne waa kër Ousmane Sonko itam procès war naa mën a am waaye Ousmane Sonko waru woon nekk à la barre Mame Mbaye Niang moo fa waroon a nekk ndax dossier wu Prodac boobee dañ ko waroon leeral ba mu leer naññ ci kanamu travailleur de la justice yi dem ca grève ñoom ñooñee waroon nañ fa taxaw ngi daal di leeral vingt-neuf milliards yu yi nga xam ni Sénégal gi yëpp ñu ngi koy ŋawti ŋawtee Birahim Seck bind ci ab livre te nag ñu ne Mame Mbaye Niang moomee mooy ki nga xam ne ci moom la lépp daal di déparé kon nañu daal di leeral mbir mi bu ko defee sénégalais yëpp daal di ci am information bu wér te bu ko defee nag diffamation dootu fa am Ousmane Sonko ma Mbaye Niang xañ nañ liggéey Ndakaaru njaay gi yëpp ndax kat boo xoolee service yu bëri dañoo daal di tëj seen ay buntu ndax bañ ay jàmmarloo yu am ñu daal leen indil ay jafe-jafe ñu demee nag ba am réew daal di toll foofu taxaw seetlu war naa mën a am waaye itam jël ci ay décision yoo xam ni yu responsable lay doon yuy dimbali képp kuy sénégalais yuy arrangé képp koo xam ni nga yeewoo ci réew mi ndax du intérêt Ousmane Sonko wala intérêt Mame Mbaye kaw intérêt sénégalais yi loolu kenn dong moo ko mën a régler moo ko mën yi muy le président de la république Macky Sall moom mi ñu dénk kaaraangeem réew mi suñu jàmm suñu salaam waaye itam l'intégrité de la nation moom la président Macky Sall mu ne am na ci ay dossiers fii ci Sénégal yoo xam ne bu nareetaal réew mi dama siy teg sama conc concam boobu nag jot na tey jii mu daal di koy utiliser ci mbirum Prodac bi nga xam ne ma Mbaye Niang topp na ci Ousmane Sonko te ñëpp xam ne fa muy nekkul luy neex képp kuy sénégalais kilifa diina yéeg ñëpp a ngi ciy wax waaye ba tey dafa mel ni état du Sénégal déggul boobu lépp woote mbir mi mooy nañu bàyyi xel sénégalais yi te xam ne procès bii bés bu aboutir ca ñoom nañu ko bëggee Ousmane Sonko ak lam ca daal di wax yëpp ndaw ñi ak taxawaay bi ñu ci am itam dina nekk luy gaañ lool sénégalais yi te nag ñaanuñu ko yàlla jàmm ak salaam lañu soxla ndax xiif gi sénégalais yi xiif loolu képp doy na ngir jàmm man fee am waaye itam weeru koor gi ñu nekk dimbalante moom moo ci gën fuuf di jéem a xañante jàmm ñun sénégalais bokk baay benn bopp la kenn mënu koo xar nañ ci jéem a nag ay solution ngir sénégalais yëpp daal mën a nekk ci jàmm li ci mënti am mooy ñiy liggéey ci justice ñoom ñëpp nañ seen ab bu dee teg nañ ko ci yoon li ñu njort mooy waruta am dañ ko war a ba keroog ñi nga xam ni ñooy liggéeyee ci justice ñu daal reprendre seen liggéey waaye nag lu ci mënti am mooy dossier Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang bile bu ñu sañoon ñu teg ko ci suuf ngir Sénégal gi yëpp mën a nekk ci jàmm AGT News